projet bi su ma koy expliquer maanaam transport ni ñu ko organiser ci Dakar dafa ñetti pàcc dafa am transport yu ngand yi mooy berte li muy def ak TER li muy def ñooñu mooy tibb 500 personnes pour yóbbu ñooñu axes yu mag yi ñoom ñoo fa nekk am nañ TER bi am nañ ko au sud am BRT au nord ensuite mu am Dakar Dem Dikk ak AFTU ñoom ñooy def transport avec des bus ñu am maintenant beneen maillon bu fa xam ni jusqu'à présent clando yi ñoo ko doon def ñooñu lan ni nañ leen nañ accompagner acteurs yooyu noonu pour yóbbu leen si la xam dina gën a méngoo jamono parce que bus yi ngeen gis ni c'est des bus yoo xam ni dañuy fonctionner au gaz donc pour wax ne dafa méngook même euh, environnement looloo ñu fi indi tey ñu joxe fi tey 36 bus mu nekk 36 bus yoo xam c'est sur un lot de 300 yoo xam ni tey am na yoo xam ñi ngi daw Rufisque am yoo xam ñi ngi daw Bambilor Bayof ñi ngi daw si banlieue bi yëpp pour yombal dem beeg dikk bi si biir banlieue parce que gisoon nañ ni jógee Kër dem Dakar moo gën yomb nga jugee benn quartier Kër Massar dem beneen quartier Kër Massar donc projet bi foofu la tënku mooy def li ñuy tuddee transport de proximité yombal dem ndikki dem béy bi si biir Kër Massar. boo xoolee bu baax li ñuy daw actuellement Kër Massar mën naa ni njëg bi cherul cas bi nga wax noonu mooy bu jugee Kër Massar di yóbbu nit ñi si terre bi au niveau de Kër Mbaye Fall dafa nekk benn cas bu particulier boo xam ne dañ ko démarrer en attendant ligne de rabattement yi ko war def ñëw def ko yooyu bu ñu ñëwee dina gën yomb parce que am na bus yoo xam ne prévoir nañ leen. pour ñu jëlee waa Kër Massar waa Lac Rose waa Tivaouane për pour jëlee la ku nekk fi nga nekk mën la yóbbu si station terre bi la gën jege boo bëggee jël terre nga jël te plus tard même dañu prévoir que ni boo jëndee carte si terre bi wala nga jënd carte si bus bi carte boobu dina la mën permettre nga continuer sans pour autant ngay rangaat di jënd ticket. ligne bu nekk ligne boo gis muy daw Dakar bañ koy teg xalaat nañ ko <laughs> méngale ak li ñu fi nekk boo ba léegi gisaguma ligne bu rey diñ Dakar dem dikki mi ngi daw aftu mi ngi daw clando <laughs> ñëpp ngi daw mais gisoogee kenn ku rey kenn parce que buñ koy méngale fii nii dama naan 79 daf fiy jaar dama naan 71 daf fiy jaar su may tegaal liñ dama naan ah attention fii 71 mi ngi fiy jaar fan mooy influence am fan la yem noonu lañ koy organiser lii dafa laaj xalaat boo xam ne ñu ngi koy def ñun au niveau du CETUD suñu rôle mooy organiser transport bi ba opérateur yi jël oto yi mën ko fay si jàmm population yee yóbbu ñu mën leen yóbbu si jàmm confort ak sécurité fekk na loo xam ni wax naa ko léegi dina si ñëw parce que déjà ñaa ngi moo gis si baa lay tàmbale prévoir nañ aménager benn gare routière bu mag à l'entrée de Kër Massar mu polariser toute la zone am na yeneen point yoo xam ne dañ fa def ay aire de stationnement à Jaxaay et ailleurs noonu la ñuy tàmbalee au fur et à pour créer de l' espace pour transport mën a tegu si yoon ni bus bu nekk 8 millions 400 la loo bi loo 300 bus la ñu tas ko si biir Ndakaaru am nañ 100 bus yoo xam ni tey yi may wax ak yow nii ña ngay daw Touba.